Leewtoo TV nuyu nañ leen siyaar leen ni ngeen ko xamee nag Leewtoo la ñu wax lamb kese nga fii seetaan ci diggante kan Talla la ak Babacar tey ñoo leen teewal arène nationale ku fi woote Assane Ndiaye borom Baol production bu fële la borom Lamsar borom jàmm gën si mbaaw ak kan double moteur bu Robes bu ñaay joker bu ASC jamono bu Medina bu Dakar Plateau noonu la demee ci Leewtoo TV mais Talla Ndiaye tey numéro 10 ah la ma sonal moom Abdou Xarañ yaa xool 10 bi Abdou xale ñu jaar fii Talla waa gis nga numéro 10 bi Babacar la def def numéro 10 def Leewtoo Abdou def loolu tey Talla Ndiaye. gars yi ba at bi siflee xam ne xale mën xalem xalem mën na fii waaw li mu foog mu ngi nax boppam de Feugeula nekkul yoonu kenn de bu Feugeula paree si moom aar ma ko waaw aja Babacar ko ci saako yi buy ñëw nga góolu ko ne ko rabtee ko soog a bëre mais bu ko may mu windil windil itam yee bu demee nii dem nii tel tel lay def song yow yow lu mën a am xoolal nii rek raam fixé ko dem direct ku ko may mu taxaw di tourné defal directe mais da ngay fermer sa garde wàcc. yow xam nga li nga mën a bëre. bul bëre bu ko bu ko bul bul bëre ci rythme moom bëre ci sa rythme force force doole mais fermer sa garde bu baax tey xool. siyaar naa la grand tur bi nag. Thiatou Kairé bu dali koy bëre Taw Cissé Serigne Ndiaye 2 fils de Serigne Ndiaye laa bëre. bi mooy sa ñaata combat ren. mooy sama deuxième combat. ñaata bi benn ñaata victoire nga am ak. benn victoire la am ak ndax te bii mooy ñaareel bi si kàttanu yàlla. ku la indi tey. tey sama mbokk mooy indi Kaaw Cissé. loo bokk ak Kaaw Cissé. tam suñu ñaari yaay ñoo bokk. daal xool ñi niñ toogee ci sumukaay yi taal. ci naaj wi. laalal bii bu laal bii. Talla Ndiaye butéel yi ku la bëggoon wax yëpp ne noo koy def est ko def. déedéet baaw man kay baawar li ma jaaxla ataaya ji la ma ma jaaxla xam nga ataaya la xaw ma kafe la. lan lan la. ataaya la xaw kafe la. ñaari baraada yuñ boole ci benn fourneau la. kan la ñuy kan la ñuy baxal fii. Ah, doy na waar ak i gaz. kan la ñuy baxal. doy na waar man de xamuma lu xew nii waaye daal. koy baxal koy baxal. ana soccu bi. mu ngi soccu sàng ba tey. soccu lan la. nga ne. maare. laa ilaaha illallah xam nga mante maar. waaw. dafa weqat. maa xam mante. daa weqat gaaw ci sibiru. waaw da faj. waaw ak leer. waaw xam bu nekkee sa ginnaaw nekk doo sibiru. xam naa loolu. laa ilaaha illallah. xool fur wi ji Talla Ndiaye. Talla banana pomme. day lii nag lii dessert gii orange ay ngandi orange banana Côte d'Ivoire gi. waaw Babacar ñaanal ma ñaanal ma ma galas gi ñaanal ma ci pom gi. ah xool carton <laughs> waaye lii doyul waaram. waaw mais fañ la nag fañ dëkk ak banana. waaw rëbës <laughs> waaw waaw boo demee Sandinière de moom mu nga fa fes del. Ah, <laughs> ay kooku koy sottil butéeli ñoo bokk ndey ak taala mu koy sotti de ñu koy sotti naa la maa lay delloo bëggee baaw. ci loone sant sa waaye dana du wax fekk daan na ba pare moom. waaw dinañ ay góor ji jarul muy bari affaire ci kanam tuuti léegi mu leer. mais ni nga taqe nii suuf si nii. waaw lii gaa yi la rek gaa rek. ak furu bi may gis nii ci ginnaaw xanaa lii la. waaw bëgg lépp neex rek bëgg ñëpp suur rek. Ah. waaw ñëpp kontaan. combat bi day gaawal day yéex. combat bi sans débat ci rek. waaw bu taxawee moom xam naa ne du yàgg. waaw. incha kookoy Bébé Diouldé numéro 2 waaw ku nekk ak say supporter moo ki supporteram waaye feneen la Babacar yow yaay kan Diouldé ah, bari nga mbooloo de macha allah ah woy woy xam nga rek stade bu sori bee wàññi mbooloo mi bu sori bee wàññi mbooloo mi mooy sa ñaata combat bii mooy deuxième combat ah am na victoire la am nga ah waaw waaw waaw victoire waaw ñoo ci victoire koo ñaata la ni bëral waaw waaw waaw waaw amul benn problème. daal la ñuy wax bisimilah asalaamualeykum wa rahmatullah yaa ngi arène nationale tey Assane Ndiaye fi woote premier combat ngongu du action waaw waaw du action ngeen jàkkaar lool moo jóge plateau Salmon Bosco Sow Salmon yor ngeen lu vert li ñaari garde normal jàppante waaw ay rokos ay rokos mu ngay dal dóor faq eh. maa doo dóor fàq daanu yow xeex bi dee laa il du ak soni na ko dóor mu daanu dóor ko mu daanu laa ilaha illallah waaye salmon foo jëm yow salmon fu mu jëm Talla Ndiaye salmon yow. mooy miir ba waxee. waaye salmon lu mu jël. ah doy na waar. salmon loo jël ah, la ah, jox diis na. ak soo laal na salmon laal yu salmon mi du ak soo xaw na ko waaye salmon yaa yey de daw baraw ci nguure daw baraw ci ngóore dawal baraw Youssou Ndour ko wayoon daw baraw ci ngóore la liñ la def sànq bu doon ci biir géew bi la nga pare moom korante Matar ju fay arbitre combat bi waaye du action salmon waay ngay eh, du daw na taala du ngay daw waay yéen waa du ak ah, fay na waay fayu waay waay ah, eh, du daw na door fayu daw waxet ah, taala njaay doo daw waxet door fayu waa fayu fayu fayu man ta taxaw de mbërëm buy jot na de arbitre yaa ngay wax ak moom daw du action la ñu jox wala boog salmon lañ jox ndam lu waral loolu du action mënatu la continuer a lu tax da ardo ba médecin ba tas lamb ja a tuus ma ca dugul moteur. tambourang tambourang après yaa ko sëñ yow yaay diis affaire comprends ko mais bu ñu daaneel tamit dañ ci bokk maanaam combat bi Talla Ndiaye troisième combat ngongu la ilaha illallah Ndiol Asou mu Ngunjaan Ndiol Rekoba Ndiol Asou Rekoba école de Mor Faram ñu ñaanal Mor na ko yàlla yërëm te ko Rekoba Ndiol Asou rek ba Ndiolaas wee daw na di ko bés mu bañ loolu mënta sotti Ndiol ak rek ba waaye rek ba waaye noo fu iri. féete droite rek ba. rek ba féete droite Ndiolaas nga jàpp sori ñool assuré ko ba ba Ndiol Assuré Koba e eh, Ndiol Assuré Koba moo tante nañu ñu ngay jeex bërëb ca suuf jóg nañu joxoon nañu borom yóbbuwaat na ko daan na ko de waaw waaw daan na ko de ee eh, Rekoba Ndiol Asou na Rekoba waaye Rekoba daan nañu la Ndiol Asou na la waaw waaw Thank you. Arsenal moo yor ñoom lu ñu li wala. Arsenal su euh, ma juumul ba borom dem lu weex li. ah Arsenal a féete góos. am na naa ne waa liñ sëgg. waa jàppoo ba. waa jàppoo bi waaw. suñ defee rotation rek ma xam ne. waa rotation kookoy Saliou Ba. ndeysaan. borom Imporo. ndeysaan doomu ndey Medoune ak Lamine Samba. Medoune Diouf borom TFM ak Imporo. tey Medoune ak a xam lamb Medoune Diouf. ah ah lamb ak leneen nga wax. lamb ak leneen la Medoune xamoo. saa la wax loolu. leneen laa ma jaaxal man. loolu leneen lu bëri affaire la. yow sax xamagoo ko. déet xamaguma ko kay. non foog nga jàng yoon. ay waay dinaa jàng waay eh, jàng. eh ñu nga ca. sol na ko. bañ na Arsenal nga bëgg a sol wañ. moo def Arsenal moo nekk à góor. tibb ko. da ko loolu lañu naan jugaale. delloo ko jugaale ko. da ko di bopp jugaale. da ko jubaale borom Bambey yaay ñu ngi lay ziar. maa ngi na nga def. ah yaa ngi si jàmm. naka comme ñëw nga ci 15e édition bi rek kontaan naa waaw waaw. tey Assane Ndiaye tudd lay ay di lay tudd ay drapeau tey nekk 15e édition lan moo waral seen diggante yéen ñaar ba tey fukki drapeau ak juróom am. waaw euh, Assane dañ koy féliciter parce que choix dafa am solo moom bi mu choisir ki nga xam ne mooy partenaire am ci Dakar di partenaire ci Bawol maa ngi moom ñu bokk dëkk Bawol mu jàpp it ni man. incarné naa bawal symbolisé naa bawal yàlla ndokk yàlla ba nga xamee ne eh, yaakaaram tasul ndokk yàlla ba nga xamee ne xale bu gëm boppam la dawul jëm fenn fi mu war a nekk rek la nekk fi mu nekk ku ko fi fekk doo ko doloo fi def muy sama digganteeg moom mu am confiance ah, ma ànd ak moom ñu nekk ci pouvoir mu ah, ma ànd ak moom ba léegi ma nekk opposition muy ànd ak man gëm boppam gëm ba ba léegi te man yewooguma ba tey ba léegi jàpp naa ne pouvoir bi jeexagul ba léegi damaa biddanti <laughs> waaw. mais noo gisee lamb ji. waaw lamb ji moom ñoo ñuy wax rek mu ngi développé wu. infrastructure yi ñu def baax na mais nañ ko gën a gëm nañu gën a jàpp ne suñu sport la nañ ko def suñu patrimoine ndax suñu sport national la euh, jàppale itam xale yi jàppale promoteurs yi pour ñu jox xale yi liggéey parce que xale yi entraîné nañ toog te suñu entraîné. bu ñu amul benn opportunité rek xam nga fa ñu jëm. yaay booy am na ndax yaay booy am na mbër. man aw ma mbër mbër samay mbër lañu li ma xam daal moo di drapeau Aïda ku ko jël champion ngay doon. balu orange balu basket taala Balla basketteur nga wala. Babacar yi ñu ziar lamb jee ko waral tey. li mu wut bi. waa kii daanaka euh, ko liggéey. ah ci wàllu entraînement. waa entraînement li ñu lu bëri bal bi lañ ko répété. kon tey est ce que fëgale mi da nga yaakaar da ngeen koy def fi ngeen bal bi. ah en daal naa la xamal ñaar ku yéex doo gis jëllu bi. lu leer laa wax Babacar. Ah. lamb xale la soxla. te diggante gone ak mag la. te gone bu soxlaa mag daa war a jël rek. mbaa mi mag jeexal na est ce que loolu leen doon yaakaar du leen nax. question bi sax bu ñu nee xale ak mag a na jeexalagul mais fi mu lamb fi mu lamb waru foon na lamb te bu ci kanamee da nga ko xam déedéet déedéet déedéet. ñu ngeen ko indee ah nañu daan indee rek liggéey rek jaar fi ñu wax. ñu bokk ñaan yàlla ma ñu ndam loolu rek sport la. day yomb wala. waa liggéey la liggéeyu góor moom dara du ci yomb waaye nag dañu ñaan yàlla mu sedd guy te neex. te gaaw dégg naa la. bàcc a ngi nii. mais bàcc en fait ñëw nga stade. waaw ah, waaw gis nga ñëw naa stade comme mu tase woon keroog fële si kër Ouzo te Ouzo sama mbokk la sama papa la sama lépp la bu xewlee comme ni ma defoon keroog rek ba jaar fa moo doon dee dem ma ni foofu moo ñëwaat jaaraat fii tamit. Hmm. bàcc Seras. laaj naa la ko kera tontu woo ci bu baax sénégalais dañuy xaar tontu Boy Niang la dëgër de samedi la ngay doomu Pikine dëkk Pikine Boy Niang loo koy wax si combat bi mu jëm parce que nag tey faaw nga wax de bàcc. Hmm, comme comme li ma waxoon rek laay waxaat man Pikine laa dëkk Pikine laa juddoo je suis une vraie Pikine waa xaw ma Pikine noonu lañ koy waxee maanaam Pikine laa dëkk fa laa juddoo boobu ma tam leneen lu dul Pikine comme ni ma la ko waxee keroog Boy Niang sama rakk la te yaakaar naa kuy dàq si àll la dàq mu jëm si kër moo gën. kon loolu laa mën a wax si loolu quoi à part ça tamit pour ñu gën a gàttal affaire rek Babacar ma taxawaat ak yow mi neex na ma trop su ma sëyoon nag nga ñëw lënd li ñu war a yaatal si Pikine comme ni ma ko waxee woon yaatal ko ça dépend de toi wax naa. lënd nag. day nit tiit ah day nit tiit ah. ay xanaa dañoo tiit. foog ne na leen wax. Abdou tere wax. yal na ko yàlla may ndam rek. yal na ko yàlla suturaal may ko ndam. lan moo ko na ko yàlla dagg xiis. sànni góos. sànni na góos. BMW la. ak Koña bu yëmbal. BM a ñu wan ginnaaw Koña ñu ngeen jàkkaar lool. sànni waat na góos moom BM. waaye BM mbete oto. door na ko inde laa ilaha illallah beem laal na koña inde koña mbaa lool dina sotti beem laal na koña inde yu saf waaw góos boobu buy doxantu baaxul de dalal góos boobu buy doxantu sa gi koña bu yàggee dafay def effet de yooyu du wóor de loolu wóorul de daw na jëli ko moom koña daw na jëli ko ñu tëru ko ñu ngi koy rokkos ca suuf ee eh, koña koña ak BM koña ndengeñ na ko de ku nekk sa loxo droite jàpp na ku nekk sa loxo droite jàpp na Sagna jàppante ba yàgg ne Talla Ndiaye jaa bëtt na ko da daan doo jàll doo jàll beem daan na ko beem kale na pan ci kaw Koña ba duju ci kawam wulee ko ndi eh, mbërëm wulli ma waaye mbërëm wulli ma waaye beem wulli andi na mbër ma mu daan eh wuleeg beem waaw wu ne na xaay say ngembaate village a nga koy sottee tim ndox xame nga kii moom lañ fi dóor mu daanu entraîneur bii village kooku noonu ku gàtt kii waaw gis nga ko moom ngi Alioune Seye Junior ko ne ko roose fang mu tëdd waaw sant waaw sant yàlla rek. sant yàlla waaw. léegi foo jëm. kan sox bu dee gaynde la Baye Fall la ñoo ñuy bëre wala ama neex bu tëngéej wala moo jëm yoof ay morom lañ ñoo mën a mayante ama neex problème daan la barki dem wala wuli do ama neex nee dama mere soo mere a si xarit dafay bari bi yàggee duñ bëri suñu biir ñoo ñu bëre mais yow xaritoo kenn man boo dëggul lamsaar aw maa yow affaire wala jàmm gën Cheikh moo koy yow Double Moteur mais tey xalaat nga moog sëgal fu ñuy mujjee dañ koy demande pièce par pièce kontaan ci bëgg ci yow. bu écrit déggoo bokk passé. a féete gauche suqi saaf à droite ginaar laa ci xamoon Talla Ndiaye. Babacar loolu da laaj Pape Diouf. suqi sa eh ñu ngay xeex farama suqi saaf waaye yéen wax nga dëgg Pape Diouf a ko wayoon de suqi saaf dóor xeex waaw du mën a ñàkk taala ñu ngay la ñu ngay dóorante de ñu ngay dóorante suqi saaf ak fanam fanam lu mu a def suqi saaf suqi saaf fanam xalaat naa dóor mu daanu am ci de loolu de dakkul xalaat de moytul góos boobu waaj na tibb ko mu maar ko kaat appui am na ne arbitre wala quatre appuis am na suqi saaf dañ lay suqi dañ lay suqi waaw dañ lay suqi saaf eh waay waay taala suqi saaf saaf morom si ñoom daan na suqi saaf daan nañu mërëm toowoon pël ma. waaw suqi na ko saaf na ko. ah doy na waar xool ko na mu suqee jógal suqi jógal jógal jógal jógal. ñam na ko carrière ñam na ko mu koy jël da daan maar na ko da ngay ñàkk doo génn foofu bés mbaar ba mu daanu jeex na waaw ah, doole doole yemul. doole yemul xool carrière nee na keneen ñëwaat taala demoon doo dem. ah doo dem nee na keneen ñëw. Babacar na ñëw. nee na keneen ñëwaat na ñëw Babacar ñeme naa ko. carrière mi na ñëw na carrière ñëw. man géej yooyu laa dëkk nag Babacar. ah carrière mi damay xalaat mu rajaxe la. ba Balla Gaye dëkk laa dëkk. ah ba ci lan ba ci nga dëkk ci carrière mi. na ñëw ma ak ma man. dugg ci bagage yi carrière. ay waay ah, ah ah ah ah tee leen tee leen day dem fu mu jëm ca caméra ma ne daw leen. Rosa Talla Ndiaye Talla Rosa waa xandaalu jóg nañu de semi seen ya na de laa ilaaha illallah waa kër Double Moteur taal nañ semi seen ya taal nañu ko de xool xorom si xorom waaye ndaw fii saf xorom xool Feugeula dem na ca ñoom Feugeula dem na ca am na lu koy tàllal gaaya bañ nañ kayit la koy wan mu ngi ñëwaat Feugeula angoo nguy ñëw arbitre yaa ngi wax ak ñoom pour ku ne yem sa place waaye Lamataar a ngi wax ak Feugeula ak Malick nañ ko yemal sa place ñu ngi xool taala bëgguñu ko wàcc yoon cey làmp waa Rosa ñu ngay way waa Lamsara ngay way tey jii làmb fëgale sukkaat na Double Moteur moom mu nga taxaw rek xibla yee lay wër waaw waaw day sukk ñeenti sukk door koo takk lëg lapin taala njaay lapin ba taala lapin bi am lapin taala kaay lapin ngi lëg seen ee eh, bi lapin bi jàpp nañu la fin ba waa Lamsaar fëgal laa ci bagage ba tey taala mu ngoonguy dem rek di diri sengoor gi mu koy sotti butéel yi ñaar ñëpp balu ñëpp ak Feugeul laal na ca suuf say tubbi raxas loxo yi xool ko di seere mankaani ya cey bi combat arène nationale ak Assane Ndiaye Feugeul ko mujj daan heure bi daaw jokkeel Double Moteur ko mujj bëre ren Naar Soxas daan ko mu daan Naar Soxas mu Double Moteur Feugeul mujj daan jokkeel tey Assane Ndiaye boole leen Feugeul mag ko ci lamb xale bi liggéey ba ñëw dab ko ndax Feugeul da koy bàyyi mu jàll wala déet loolu yaakaaruma ko Feugeula du nangu loolu waaye ndax Double Moteur day bëtt baaraas ñu ñu yónni yàgg Feugeula nee na gaa yi jóg leen Talla Ndiaye yaa ngi tey arène nationale Talla fi mu nekk nii. Babacar ma dara actuellement Babacar. lu tax dama nagam tey. lu la nagam lo ah du ma ko wax. Ah, nagam ñemewu ma ko man. tax ma nagam moom Double Feugeula toj ñan. nuyu naa ñëpp Abdou Bou Xarañ maa ngi nuyu tey maay Sénégal bi ma sol moo ma ko jox. defar ba mu rafet mu yónnee ma. Babacar wax la Abdou mu jox ma. da jox mayoo ab. Babacar heure bu ñu la joxee dañ maa war a jox. looloo yoon ñu ngi lay taala. Babacar lu tax doo def loolu Babacar. taala ñu ngi lay jox de taala. Babacar taala bul waxati loolu. Babacar kenn joxuma. Cheikh jox na la Cheikh wala bi nga xam ne mooy Aliou bu Yankaaw ca ca Caaroy jox na la. ba benn yoon lañ ma jox xaw ma ñaari yoon. jox na la. te am nga téeméer yoon Babacar. mu ngi bëgg a bari Babacar dee ma jox. ah taala taala déet waay ñu nga ca de waa ndeysaan loolooy Leewtoo TV eh arbitre day soufflé Abdou Xarañ nuyu naa la yaag sa doomu ndey Petit ak Jib waaw waaw waaw Petit Sène yëpp naa leen Lamine bu Ama Sène itam maa ngi koy nuyu ñu ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo di doxe wet garde garde normale fëgal la garde normale maanaam pied droit double moteur fausse garde pied gauche wàcc fatte ko ñuy doxe maa arbitre baa leen naan bëre leen de moom Matar Diouf mooy arbitre combat bi fëgal day gëdd dem wala laa ilaaha illallah képp ku sifir nuyu nañ la ee eh, ani waa rëbës seen dooma ngongu ñëpp a ngi ne tekk waa ñaay cokeer waa Medina waa jamono duubu la ngi nii waa Caaroy waa Lamsaar waa Sika Mbaaw ak jàmm seen dooma ngongu mooy fëgal ñii le waa too moom Abi Ndiassé ko andi moom fëgal moom Tidiane Faye ñoo ko andi waaye Double Moteur ñoom Sall ba wala ko waaw loolu la ñu def ñoom Mbaye Balla Gaye ñu ngay doxalat ba de dara xewagul nag taala foog la ngemb lu xonq wane ginnaaw Double Moteur ngemb bu son ngeen jàkkaarloog moom eh làmb ngi taala Ndiaye ci arène nationale ndongo Fall ta Italie naa ko foog la day door na foog la door na xale bi këpp këpp ak ko dafa door xale bi ak daw jàpp ko sol na ko da koy weyale fagala ca biti laa ilaha illallah xale bi yóbbu na ko de laa ilaha toppal ma loolu taala fagala daa xeex mu daw dajeeg moom daal di ko sol dañ ko sànni ko fagala génn ca biti ñu andi wàllin si géew bi waaw waaw Feugeulade Double Moteur Double Moteur Rebeuss Feugeulade Lamsar may nuyu Soro Malick Lamsar sa mbër maa ngi Xaadim Jaxate Rebeuss sa mbër maa ngi waaw waaw ci géew bi foog na loxo ba war na ko laa ilaha illallah lu xew Feugeulade koy dóor Feugeulade ngay dóor mu koy dóor inte Double Moteur Feugeulade Double Moteur mbaa ku yooyu ngay jël dina baax ci yow mbaa ku yooyu dina baax ci yow Feugeula day rocc loxoom di fu mu dóor Double Moteur dina la lewoon ca bët yow eh bii combat du yomb naa combat bi du yomb de Feugeula technicien la daa yàgg bëri bëri nag champion yu bari ci lamb daan ñii ñii daan ko kon xale buy bëreeg moom bof nga jox ko cër de. Double Moteur ngay bëre ak moom gàllaaj a ngay dagg dina Talla Ndiaye tawaat na door fëgale moom Double Moteur wàcc fëgale daa a xeex ak moom jaaga lay samp Double fu mu jëm Double Moteur na ko wéyal na ko mu bañ génn nañu ah Talla Ndiaye Double Moteur dem na ardo de waaw yóbbu na ko ardo dem na ardo moom Double Moteur Feugeula mii naa la ko Talla Ndiaye du ku nekk mag di toxantoo wala du mag mu ku lay toxantoo. Babacar mais nag Feugeula xeex bi la gën a privilégié mais. waaw parce que avantage la si moom. voilà double moteur moom bëri bi la gën a privilégié. boo xoolee double moteur xeex bi Feugeula xeex moom daa mel ko jaaxal waaye mu nga ca docteur yi moom double say lamb ëllë. Talla double moteur ñëwaat na moog Feugeula double dem na Ardo. ni ma lay wax rek lamb buñ naan du mag la du xale la man baab la man duma d'accord ci du mag la du xale la ku entraîné bu jël sa avance na la am na la mu denc ndax bu rek li fi feeñ na gu mbiru mag a gu na gu fi moom waaw waaw boo xoolee ko te xeex bu fëgale moo gën avantage ndax li ko waral moo yóbbu na ko ardo te loolu da koy gën a may confiance te dugul ma te dute baaxul ci moom ci biir combat yaakaaruma du te dina baax si moom déedéet taala ba tey ñu ngay lewaatoo de gëdd gëdd xeex wala te kaaral ngeen de te kaaral ngeen de daw na door mu daw na jëli Feugeleu sol na ko Feugeleu sol na Double Moteur Feugeleu sol na ko balaa kaas bi la bëgg tëddu yomb moot moot na ko ndombo da koy daan fu mu jëm moom daan na ko awa yi jaay na ko doole daan na ko daan na ko loolu la doon wër Talla Ndiaye jàppul daan xool Feugeleu xool Feugeleu ndeysaan oo oh, Feugeleu waa double loo wax yow. te ak lu mënti am xeex bi ñu doon dóor ba ñu dee sax dañuy xeex bi lan moo tax nga am ci problème ci xeex bi lan moo tax nga am problème xeex bi. waaw parce que ñëwuñu pour xeex. bi victoire gën a leen tax ñëwuñu xeex. kon yi doon topp si Leewtoo ñu ngi woon es nga xam ne mooy arène nationale ak kan Assane Ndiaye borom bool production comme li ngeen ko waxee combat yu neex am fi combat yëpp yegg. double moteur ak Feugeula nekkoon grand combat bi kii di double moteur yàlla may ko ndam lu leer ci kaw Feugeula Feugeula nag démérité wul ndax wane na fulla wane na jom wane na fayda ndax ku bëre xale bu mel ni double moteur yóbbu ko ardo ba pare mu ñëw door laa daan yaakaar naa ne kon loolu mooy wane ne comme am na lu nekk ci moom ci lamb dañ koy encouragé di ko wax ne ko ci ndam la jóge woon na muñ te liggéeywaat double moteur nag xale la mu ngi ci yoon di di bëre dégg nañ li mu wax ni ma Reug Reug la soxla loolu nag am na ci droit Talla Ndiaye ndax pata sama gënal ñambi kuñ ci tëj sa avocat daa baaxul waaye loo ci mën a dégg daal nuyu nañ ñëpp siyaar ñëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm den wax ne Leewtoo TV la woon ak yéen Talla Ndiaye ak Babacar fii ci arène nationale waaye Abdou bu xarañ moo génn fii Talla Ndiaye ci numéro 10 Masol Abdou bëgg naa la kon mbokk yi ba samedi ak jàmm incha allahu rabi Baye Ndiaye fii la woote la dëgër de booy Niang fii la ñuy sëg bu soobee borom Papa Ndiaye rek naa la Talla a jango